trois espoirs. maa ngi lay fay. ana ci loolu. di la waaye maa ngi nii rek nekk ci jàmm. waaw kon dab rek. coono feeñal wala yëgoo daal. non fi sama yaram commencé tàng fi leen ma génne. Hmm. waaw mais man mën naa football cent minutes. jàpp nga bii ngay génn. non jàpp ma ko woon mais parce que xam nga mag sa gala la mag sa moom dangay ngay bàyyi gars yi ñam boo jee dix minutes sax baax na ñeneen ñam parce que gis nga ban bi dafa riis ñëpp nekk ci ay ñamalante rek. temps yi làmb ji tëj ñuy organiser ay football gis nga ne loolu ça waaw lépp ci booloo la rek fair-play la moo tax ñu def ko parce que sport la lii football la lii làmb sport nag ku ci nekk da nga mën a yaatal côté bu ne. waaw côté bu ne da ngay mën a yaata waaw gis nga. yaa ngi ñii ñoom Dame Ndoye ay international la ñuy footballeur ay. waaw ah, ay waaw gis nga. kon ñun ñoom Henri danoo seetaan si nii rek de. ah waaw ñii. leen door daal yéen da pour échauffé. waaw danoo échauffé wu nii. seetaan si nii. waaye xam nga ni ñii ñun ak ñoom du max. ana maa ji maa de. mi ngi fi ñu ne sama turando après dina dugg deuxième mi-temps. waaw combat yi toll say ñu ngi ci kawam di décrocher. xawagul ñun waaw non ñu ngi ciy waxtaan yeeg yooyu mais ñu ngi nekk suñu entraînement rek. di lii waaw ci sama garaaw guy gi moom xam nga xam nga bis yi moom moo koy organiser bis yi rafet yi ni mbaadu kon ñu ngi lay xaar. <laughs> mu ngi wax rek. daal mu di rafetlu initiative bi gars yi def waaw kontaan nañ ci suñuy grand dame doy guy gi li ñu def nii dafa rafet quoi parce que da la war ne sport. day boole du tàggale waaw lii yëpp c'est le sport quoi di ñaan yàlla ñu football ko ci jàmm ak salaam kenn bañ a gaañu nag waaw. kontaan nañ ci yow. maa ngi lay ziar. waaw maa fay Pël. numéro ngi nii maa ngi kuul yow mu nag. takk daal lii. waaw nii rek. di waajal. waaw sant rek billaahi. waaw. saison bi tëj. ngeen di organiser ay match. keroog gis nañ la fee stade Amadou Barry. tey nga ñëwaat fii. ban moment lañ la wax tey da ngeen a war a football ak euh, ñi nga xamante ni mooy suñu suñu su duñ na sax ay ancien suñu joueurs yi rek lañ mën a wax. waaw waaw mais normal loolu moom dëgg yàlla rafetlu nañ ko franchement parce que loolu warul sax yem fii si équipe bii nii warul yem ci si si ancien équipe bu Sénégal bii loolu mën na nekk sax say si ay ñoom Sadio Mané bii waaw loolu mën na nekk pour man parce que. vacances parce que loolu yaakaar naa ne bu amee loolu day neexal day neexal dëkk bi rek. neexal réew mi waaw wax dëgg yàlla. kañ lañ la wax ne da war a football ak ñoom. loolu mën na ay une semaine ak lu teg rek ah. sax. guy gi moo ko wax Macha ah, Macha après moo xam ma ko. waaw ah, guy gi Macha la woon ne ko pour nga wax papa dañuy joué quoi affaire yooyu. initiative bi noo ko gisee. waaw rafet na. waaw nice na waaw nice na trop. saison bi tëj mbëri di football. ñu ne sport du tàggale dafay boole. waaw dëgg la. sport du tàkkal si kaw nag ñim boole waaw ci kaw ñim boole waaw ci kaw ñim boole waaw non am na ñoo xam ne sport ñoom xam nga dañuy dañuy kii nii rek mais waaw ñoom liñ jàppee sport loolu di sport quoi. ñu ko jàppee guerre. waaw guerre lañ ak wax lu ñaaw wala def lu bon wala wax lu ñaaw wala wax ni lu bon waaw mais sport moom warul tàq warul warul boole warul kii tàqale dafa war a boole mais ci kaw nag waaw. borom xel yi ngay laay waxal loolu mooy affaire bi àdduna loolu kese la. junj doy doy na borom xel. billaahi waaw. wax fee. waaw yóbbante si. waaw noonu la demee kay affaire yi noonu kese noonu rek la demee nag barki maam Cheikh Fall. billaahi. sant yàlla. billaahi dafay dafay dafay nekk loo xam ne moom àdduna xel la rek ak xalaat. waaw ah, boo yoree xel te doo xalaat moom daanaka amul chance waaw ah, waaw nit moom da am xel di xalaat. Madji Madji yi ne Sénégal yëpp a koy xaar namm nañ ko ci géew làmb da ngay xaar wala da ngay stand euh, yaa ngi préparé pour jël beneen koom. waaw non ñun ngi toog di xaar làmb ñun ngi toog xaar làmb parce que ñu ngi si làmb mais si suñu dund ñun xaar ñu waaw si suñu dund ñun xaaruñu làmb parce que ñun ay jeunes lañ ba pare. tamit dañoo am ay ay ay nit yoo xam ne dañoo nekk suñu ginnaaw am yaakaar si plus xam nga man nekk ak sumay mag ak sumay rakk sumay jarbaat yaakaaruñ si kenn ku dul man man bu dul làmb maa ngi si sum boobu waaw bu làmb ñëwee tamit ñu bëri ko incha allahu rabi waaw ñun moom daw ñu loolu France moom. nii nii xaar dara. non non si promoteur la des. waaw non na ñu may woo nag mais am na yenn adversaires yu ñu may proposé man maa bëggul adversaire yooyu franchement mais adversaire yi nga xam ne bëgg naa leen moom promoteur bu ko mën a démarche dox ko. man du yàqoo si man quoi incha allah. adversaire yi ñuy proposé yi ñuy wax naan papa tey mu rey la wala tey ñu rey papa. waaw non man moom mënu ma am si làmb lu yomb parce que man soo amoon lu ma gënal tey jii nii damay wàcc wàcc wàcc wàcc wàcc ba ba ci mbëru premier combat yi ma bëri ak ñoom. soo amoon lu la gënal soo amoon lu ma gënal. xam nga ah, boo amoon lu la gënal. waaw su ma amee lu ma gënal man damay wàcc ba si suuf suuf pour wane ne man aw ma problème mu adversaire aw ma problème pour ku ma war a bëreel waaye nag man sama jëmm man sama jëmm dafa am adversaire yoo xam ne mun naa bëre ñoom am sama adversaire yoo xam ne damaa bëre ñoom. comme ñan. non xaw ma sax. wala mënoo koo wax. non ñu ngi si làmb ji. luñ wax. non non mën ko wax sax mais du nekkul lépp fu nekk lañ koy waxee ah. mais bi fan nga teg say nekk sam bopp daal. entraîné nekk sam bopp. yan nga bëgg a bëre. non man lu ma am jël. na nekk loo xam ne tey jii nii xam nga làmb la rek waa na nekk lamb rek lu si des lépp après après garaawul. kon nii nii bu promoteur yi pare papa booy ji ne pare na Madji Madji numéro 2 pare. pare na bu yàgg kay ah. lan ngay wax sénégalais yi nga xam ne da nga jékki-jékki changé sa tour wax nga ko waxati ko yow yow la neex lan nga leen di. loolu loolu loolu doon ni gars yaa ngi commencé adopté de. Ah non loolu ñëwagul loolu du ay wax. jëf la loolu ay jëf la du ay wax noonu man instant bi nekkul nekkul man dootuma nekk di sori ci ay ay waxu làmb yooyu noonu dootuma ci sori quoi. essentiel àdduna moom olof danaan nit boo bu la buñ la xamul yow da ngay jéem xam sa bopp yàlla nag lépp lu mu dogal sama jëm man amu ci problème wax dëgg neex yàlla lu ma yàlla defal bëgg naa waaw man parce que jaam rek bu xeebu boo xam ne mayu ma sam bopp te ku dul sa bopp lu la may da ngay jël yàlla ma yàlla may jàmm may ma gudd fan daal incha allahu rabi. boo ma doon ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène wax ndax dafay am tuuti différence. mooy Eumeu bu xeexee du ko arrangé. mais en tout cas man Tapha ak Eumeu Sène ak <coughs> ku mënti doon en tout cas Eumeu Sène la ci wàllu làmb Tapha Tine la dama leen di ñaanal yàlla may leen jàmm ñu tal ko fekkee te ñu bëri ko si jàmm waaye ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ Eumeu ku foog ne mënul daan Tapha Tine pour man seetaanoo ay combat am Tapha Tine ku ne mënul daan Eumeu Sène tamit na ngay yaakaar seetaanoo ay combat li si am solo daal parce que ñun combat VIP yooyu dañ koy namm bëri bi moo si am solo daal yal na yàlla may tal ak wér ak fekkee ñu bëri ko si jàmm ak salaam incha allah rabbi ndam li génnul génnul Sénégal daal incha allah waaw. ku ci tànn kenn ne kii man kooku moo la a. non da nga ko faral da ko faral mm-hmm. boo tànnee ne kii moo mën kii da faral kooku waaw. Ama Baldé Modou Lo coow li tamit bëri na de. léegi nag xam nga lan la. dafa coow daa bëri. boo nee dem Gambie demoo Gambie. Gàmbi damay dem kay. yóbbu waaw monsieur laay àndal. Ferreira. Ferreira waaw ngay dem man tey si guddi incha allah. yéen ay ànd. <laughs> maa moom ñu gëj a bëri gëj bi moo jaaxal Sénégal. waaw yàlla daal man loolu lay ñaan man balaa may wax kii yàlla na daan wala kii yàlla na bi yàlla na yàlla na am ngi ñaan yàlla yàlla na am loolu kese laay ñaan yàlla yàlla na am incha allah ci doole Seydina Muhammad ndax promoteur yi ko tëgg rek sax dañoo dañoo sonn ñoom ñi ko tëgg sa dañoo sonn weesoo ñëpp a sonn. sonn nañ daal te ñun bëgg nañ Ama Baldé Modou Lo arbitre ne pare nga mu ne waa mu ne pare nga ñu ne prip loolu moom Sénégal loolu ñu faral ñu ñaari mbëri sax bëgg nañ ko waaw ñi faral ñaari mbëri bëgg nañ ko dëgg yàlla. mais gars yi naan Ama Baldé li nekk ci moom nii bu combat doon tey nekkul ci dara Modou moo gën a pare Modou Lo moo nekk ci combat bi yow naka nga gisee ñoom ñaar seen état. non Ama bindam noonu la mel de Ama bindam la mel ci làmb ni nga ni nga koy gisee noonu ak li nekk si moom ci doole fekk jàppante woo leen doo ko xam da dem laaj ñi mu jot a bëreel nag. en tout cas ñoom ñaar ñëpp ay mbër lañ yoo xam ne da nga da da nga mën a nax da mën a nax nit si état te fekk sa doole day ëpp jëmm ji yàlla leen yàlla defal jàmm daal te may leen jàmm ñoom ñaan ñëpp incha allah rabi. merci. Fils de Balla maa ngi lay fay pël. da ngaa mer wala lan. non non ay non non sama xol bi jeex ko jeexal yow. oo oh, koo xam rek. lan moo jeexal sa xol. oh. lan moo ñu ngi fukk gars yi. ay pono yu mag nga doon footballeur de. loolu ay pono la ñuy footballeur kañ. Eh. nee na nga xool ko. waa ay pono yu mag ngeen doon. footballeur la ñuy soxla léegi ñu compétition ñu compétition rek dañuy ut koofu rek moo tax. bal bi dañuy gis ne pour nga téye bal bi c'est tout un duñ ma paas bal duñ ma paas bal. te war a paas. ñan ñooy téye war laa paas duñ la paas wala dañ la dul gis. mu ne ko duñu gis terrain bi gars yi paasul ba ni gars yi ci kaw ñu naan fii sa baal la dawal dawal dawal mais da ngay daw marque bi biir ko jot dal daw bi dafa yéex de sëriñ ah man tamit poids lourd laa mun maa daw yéen daw yi nag poids lourd laa nag mun maa daw yéen daw yi di gaañ sama bopp nag loolu problème bi yéen poids mënu ma ko daw waaw noo gisee tey affaire bi làmb ji tëj ñu nekk ci football wax dëgg yàlla nice na kooku bëri nañ bët soo bi tëj ñu football waaw mais football bee passé gisaguñ la da ngaa voyagé woon wala damaa génnoon kër jour boobu damaa génnoon nag moo tax comme doon nii dër bi ngeen am jàmm la. ay liis bu ñu leen jàppee. liis moom waaye moo tànn ko ci marché bi rek. noo koy def def lu métti. métti laa koy def lu métti. ah. da ngay mhm, mhm. da ngay tëdd da lekk rek la la dul def. ma jàpp ko lekk rek la la. ma jàpp ko rek laa bëgg xam ma jàpp ko rek ñu la lépp dëgg la. tey nga toog dajeeg ndeysaan pro yi ñuy nit ngay nit nag fii dara jombul kenn mhm. lu war a am mooy am te ngeen war a daje doon football di jouer ci terrain bi même terrain ngeen di suyee. Euh, maanaam noo ko gisee. waaw naaj sax wax dëgg yàlla lii mooy Sénégal football bëri nañ ba saison bi tëj léegi dañuy foo lii foo la rek benn tournoi boo xam ne quatre équipes la foo waaw yaa ma gën a xam. Amadou Bayel Dame kan moo la gën a sonal ci terrain kenn si kii moo ñu sonal nag daam daam dooy moo ñu sonal. daam moo leen sonal. loolu sax daam daa mën football. moo la teree xàpp nag si terrain bi. moo la teree xàpp. Hmm. moo ñu ii yàgg na de. depuis kañ. yàgg na. waaw depuis kañ. mooy depuis suñu match yi ñu nag waa parcelle yi woon waaw. mooy daaw daaw. daaw waaw tournoi bi waaw. stade fan la woon. amul bari. Mm-hmm. Mm-hmm. tey biñ la ne da ngay tey lañ la ko wax tey tey wala wax na. wala ko sax bu yàgg la ma ko waxoon. kon yaa ngi ko doon préparé. waaw wala ko bu yàgg. tey bi nga ñëw dafa mel ni temps bi dafa xat jotoo essayé wu. non non pourtant dañoo guy gi moo tardé nag moom mooy lañ doon xaar moo ma match bi yëpp moo tardé match bi kon deuxième heure ñu xaar si la. waaw ah, deuxième bi naan la ñuy foolaat des na match yi des na li ñuy joué waat ñu foo rek nekk ci contrat a bëri di football yàqul dara ci. Hmm. yàqul dara nga xam nooy football rek demee sa xel la ba ñu nekk def ay duel la ay gaañ sa bopp ak yooyu non non. Fils de Balla combat yan combat lañ ko doon lañ doon wax tey mu dee la mais combat bi dégg ko ci Fils de Balla tey mu ah mais combat combat la rek Lac Rose du ñu war a bëri combat la yàlla boole ñu war a bëri rek. yow lañ jox favori. non non man du ma fa musuma nekk favori. yow lañ jox favori wala ñoo ko nekk favori man lamb yi ma bëri dañ ma dañ ma outsider la. bii lan la bii lan la. nee nañ Lac Rose moo mën. waaw ah. bonne phase bi xam nga ne jeexal ko. ah bon loolu laa koy ñaan ñaan ma yàlla mu jeexale maa ma ko daane bëri mu dëgg jeexal. bu doon ñëw ci làmb ji lan nga bëgg mu ñëwee ci làmb ji. mu ànd ak doole ju bëri waaw ah, phase yi amu ko loolu laa koy ñaan incha allah. loolu daal nga koy ñaan. waaw ah. kon caaw caaw. Aliou Seye 2 maa ngi lay ziar. Pël lay delloo bëggee di la ziar maa ngi laa fay. maa ngi laa bëggee di la ziar di la warmaal di la jox sa wàccuwaay. maa ngi laa maa ngi laa ñaanal jàmm. di la ko delloo nga am ci lu bare bare bare barki Sëñ Bamba barki maam Cheikh Rafal. dafa mel ni sonn nga de. maa ngi mel ni muraaka laa lay wax nii fi mu ne nii de kay jëf daal ku ko mën boo ko mënul di ko jëf di nga ko yàqal ba yàqal ku ko mën. du ay caaxaan du ay lay wax nii sama 30 minutes li mu ngi mel ni 120 minutes moo tax balaa ñu maa toogloo ma toogloo sama bopp barki yéen nit bi lii. bu arbitre na jàmm yàgg rek àdda yàlla ko moom. barki sëñ Bamba loo ci am doyut. waaye tey waar daal mais ñi ndekki ñi seen seen atee mag rek mais seen xel yi magul ñoom kii ñoom daam dooy ak ñoom bayal ak li consort non gars yi mooy loolu. Henri Camara duggagul. Henri Camara duggagul non Henri non non du dugg bu naree dugg fee laa koy koj ne ko doo dugg lii doy na sëkk ñaar lañ ñu dooragum kat doy na sëkk bugguma bugguma la ilaha illallah. war nañ leen def lii. est-ce que merewuñu est-ce que ci pet. ay lii kay ah day na waar daal. instant bi coowu làmb moo xew. Ama Balde Modou Lo Tapha Tine Eumeu Sène ñu war a jëm ca Gàmbi coow li bëri. diggante Ama Baldé Modou Lo combat bi yàgg ba yegg ci lool mujj gi ñëpp a sonn waxkat yeeg laajkat yeeg ñoom ñi war a bëre ak promoteur yi ah wiiri wiiri. combat boobu boo déggee ku doon wax naan j'en ai marre ci lii j'en boobu noonu son nañ trop ak lu yam ak lu làmb yëpp a sonn Sénégal yëpp a sonn ci combat boobu mais cette fois yi moom ñu ngi ñaan suñu borom yeggali ko ci jàmm quoi ah, ak lu làmb soxla na ko Sénégal yëpp soxla nañ ko képp kuy dund sport soxla nga combat boobu noonu. Modou Lo Ama Baldé non làmb jooju moom gaa yeeg Sénégal yàkkamti nañ ko yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm rek dëgg yàlla waaw. noo gisee ñaari mbër yi. waa ñaari mbër yi wax dëgg yàlla ñu ngi xas-xas loo boobu ba léegi nag ku nekk xam nga jàpp nga ne yaa ngi toog ci sa ndam mais làmb la làmb moom noonu la baaxoo bu ñu jëmee ci compétition moom ku nekk rek da ngay jàpp ne yow xam ndam li yaa ko moom te jàmbaar tamit loolu lay lool lool loolu lay làmboo su su fekkee da nga jëm xare da ngay jàpp ne yaay gañe moo tax ñoom ñaar ñëpp tànk yooyu lañ taxawee dañ di ñaanal wér ak tarak fekkee rek ak supporter rek ñëpp ba jour ba yàlla defal leen jàmm defal leen tawféex ba. booy dégg ñu ne um, uh, premier combat bi njëkkoon jàpp Ama moo nekkoon ci combat bi mais moom yi Modou moo ne ci combat bi. yow loolu lan ngay wax nit ñëw seen xalaat la ñuy wax wala seen gëm-gëm la ñuy wax wala seen gis. waaw non tontu nga wax ji xam nga ni ñu koy waxee rek bu làmb taxawee moom ku nekk ak sa gis-gis ku nekk ak sa analise yow noo gisee. waaw man ni ma gisee ne làmb la rek làmb la woon ñu ngi doon préparé kenn xamu woon ku jekku nag wax dëgg yàlla xëy na ama moo ci gënoon nekk xam nga comme combat bi yàgg na ko soxla combat bi taxaw c'est normal mu mu mu jaay combat bi wax xam nga ku jàpp na nag xam nga ku nekk mën nga gis ne Ama moom moom moo kii parce que dafa ñeme dafa dafa ñeme Modou loolu kese la mais tekkiwul ne moom moom moom moom moom moom combat bi. ñeme Modou Lo tekkiwul ne moom moom. waaw ndax Modou Lo jàmbaar la moom jàmbaar la kon attention amu ci. non sinon attention mën na am si ñoom ñaar ñëpp ndax Modou Lo Euh, ndaanaan la Ama Baldé ndaanaan la te moytul moom mbër mu mbër mu ñeme te Ama Baldé dafa ñeme Modou Lo lool mais Modou tamit ñeme ko <laughs> taxul tamit nga nga daan ko ndax moom champion la daal ñun ñaa ñëpp ay ak ki nga xamante ni mooy Tapha Tine seen Sène euh, amul doole ji daan Tapha Tine bu xeexee du ko arrangé lan moo arrangé Eumeu seen ci combat. non kuy wax loolu da ngaa xamul làmb wala da ngaa xamul Eumeu wala da ngaa suivre Eumeu ci muy bëre géej wala muy bëre mbapat wala ni muy bëre la arène boo xoolee bëri fi ay géants yoo xamante dañ ne woon day dañ koy rey mu ñëw génn ci ak façon kon ñuy wax loolu dañoo xamul rek Eumeu Sène mën na daan ku ne mën na daan ku ndaw mën na daan ku mag wallahi du micro yi moom moo tax ma lay wax noonu Tapha Tine nag champion la ndaanaan la mën na daan Eumeu Sène ba damm ko mais Eumeu Sène mën na daan ku dul Tapha Tine kon jaajëf maa lay kontaan